mbokk yi njàkkare ak tiis ah, ma ngay bëgg a jeex ci réew mi gannaaw bu problème taxawee nag ab solution la ñuy wër ah, solution nag ñëw na ki ko indi di Serigne Yadaly Ndiaye di daan di borom xam-xam bu mag a mag a mag ci réew ah, suñu borom nag may ko xam-xam ci wàllum faj mu ciy def lu am am am solo dinaa ñëw nag a ci feebar ya nga xamante ne tey ma nga koy faj waaye damay ñëw ak moom ci wàllum istixaar istixaar nag mu ciy def lu am solo suñu borom dénk ko ci ab xam damay door ak moom feebar yi nga xamante ne mi ngi koy faj lii di wàllum télé impuissance sexuelle Euh, rhumatisme jigéen ju bëgg am borom kër wala ki nga xamante ni tamit dafa bëgg am doom góor gi nga xamante ni bu teewee alal mu dem wala ki nga xamante ni tey dafa umu loole lépp nag Serigne Yadaly da koy faj nag Serigne Yadaly nag day nekk fi nga xamante ni tey moo di Touba Ndamatu wala fi nga xamante ni moo di Parcelles Assainies unité 16 yow mi nga xamante ni nag yaa bëgg a jokkoo ak Serigne Yadaly Ndiaye woo ko ci numéro bi di 77 122 77 60 wala nga woo ko ci 76 640 दुनिया दुनिया को मेरी मेरी अरमाने अदुना अदुना को बेलते àdduna àdduna ko meeri meeri yërmande wàññi sa neegu yéene yaa ci fanaan lu baax nga waar sa neegu yéene yaa ci fanaan wàññi xoloo ki ñaan sa néegu yéene yaa ci fanaan lu baax waat bi ñaan sa néegu yéene yaa ci fanaan yamaane del baale del baale débutant Coran la de débutant Coran la c'est pas grave oh là là dama faa sama bopp ana ci jégal tàmbale ñàkk jégal dafay dajale ñu ni doo joxe te du la mas bëgg bu dul bëgg ndax liggéey ba am war di ko séddale yërmande ci bépp mbindeef ngir mu ëppale yërmande yërmande aduna ko beral jëriñ yërmande aduna हाँ दुनिया दुनिया को मेरी मेरी अरमान आदुना अदुना को मेरे तेरी अरमान आदुना Yalla komeri mermane wàññi xollu gi ñaan sa néegu yéene yaa ci fanaan lu baax ka di ñaan sa néegu yéene yaa ci fanaan naan wàññi xollu gi ñaan saleebu yéene yaa ci fanaan yërmaande del baal lee yàlla baal laa lee yàlla baal balla del baale del baale yërmande

mais nag bu leen ma ñaawal de. non le pro le pro encore est là bravo de lâcher le ballon pour Mister No Face on a Après, les lâcher le ballon pour No Face undercover. yes merci pour les cœurs merci pour les cœurs. merci merci merci. Yeah. waaw le pro est là. <laughs> <laughs> bon juste pour wax leen ni. next album bi pare na non attends man maa ñuul wala kii lumière bi. non lumière bi moo leerum ñuuloo. sama lunette bi. waaw lunette tamit si la. parce que mënu maa nekk mënu maa nekk confinement di sangu chaque jour chaque trois fois quatre fois ci jour bi te du ma leer mënut ta nekk parce que peut être lunette yi la la gis mais dama ko simbi tay waaw li ma doon wax rek mooy euh, déjà sànq dañoo ñëwoon commencé benn live. Euh, wax leen ni ngeen rejoindre ci Soboa donc euh, boo leen mënee dem ci page Soboa euh, soboa point sn s b o a point sn ngeen abonné foofu euh, ci page Instagram Soboa ak Facebook Soboa di remercier suñu partenaire Vinto Radisson Blu bu nekk fële ne jam ñaañu Dakar jam ñaañu kon nag guys jërëjëf encore une fois une fois merci merci merci merci léegi fi ma tolloon c'était juste pour wax seen album bi pare na et que tax ñu toogoon yëpp dañoo profité ci confinement bi liggéey euh, liggéey ay titres yu bees album bu bees vidéo yu bees kon nag ñu ngi ñëwaat ci kaw gars daal seen kaw kaw euh, pour wax leen aussi euh, ci biir loolu noonu profité nañu madame mettre na en place Mabo Couture yére yi ñuy sol ni yëpp moo koy ñaw ah, te dafay livrer fépp ci monde bi ah voilà dafay livrer fépp ci monde bi ah, su limee monde bi damay juum ma wax dëkk bi nga xamante ne moom la ñu waxee monde bi voilà ci biir monde bi y a réew yoo xamante ne boo fa demee rek waaw ñoom ñoo nekk ci biir monde bi alors Mabo Couture am na ay clients United States am na ah, Canada am na Paris am na England am na Luxembourg am na na Italiano am South Africa am na Côte d'Ivoire am na am na Morocco am na Mauritanie waa Gambie ñu jënd ak <laughs> waa Pout waa Thiès waa Lingaya waa Tambacounda ñoo dégg waa Tambacounda ñëpp <laughs> a ngi jënd kon nag guys xam leen ni Mia mooy defar yére yi moom mooy defar affaire yi. ñooy maamu waaw su ma waxee loolu moom moo nekk ci moulin moulin mooy togg waaw. mooy design mooy def affaire yi mooy safar ba mu saf alors man su ma solo maamu couture moom ma moo ma solo su ma waxee loolu nag dama bëgg gars yi que ne euh, dañu nekk ci liggéey liggéey boo xamante ne dañu bëgg Sénégalais yi gëm ni on peut réussir fii nii mun nañ ci génn et que bu ma ko xoolee. muy ñafe di ko ñafe di ko teg di ko teg di ko teg du ma koy xoolee xoolee moo comme sama jabar si côté bi damay xoolee ni benn jigéen buy liggéey euh, monté benn business su ma xoolee muy design dama koy fan kii am ma boo xamante ne day way daf may ñawal sama yére du jënd ci marché bi ay tuba yu xoteeku di def non daf may ñawal solal yee maa ma couture omni wala sa kon na xola Félicitations. <laughs> Félicitations. Merci beaucoup. Je te félicite. Merci. <coughs> Je te décore. Merci. Intérieurement. Allez, allez, décoration. La décoration, je dis pas. Et vous sont les cartes. Elles sont dans la voiture. Je fais comme tout. Tu prends tout. tu prends la maison, tu prends la voiture. <laughs> Tu prends. Hein? Sauce. Rarement il y a une sauce. Pendant l'envoiteur, je vais le parler, c'est cela Tu prends tout, tout, tout, je te donne tout, je te décore. Félicitations, ma femme. Bonne assez Merci beaucoup. Merci. C'est gentil. ah, je vais le dire en sauce. Et Niamo, tu dis, on affronte les collègues. Nee na sauce lay wax imbara. Euh, watotije nan farantelaw kole miya ko mabo couture euh, min ko salli ana wonda mo kila en jalli farantelo kole ñama ceebo ina watotije yesay <laughs> euh, yesay waaw soñe ci chinois chẳng lưới chú đỏ chẳng chiến gái mà một chú đó chú trái chẳng lăng chỉ đến giá chú 약초로그 대토트 당당지로 그냥 충로 장라시로 야리 뭐야? xam naa ne am na ay fan chinois kay di ngeen làkk di du chinois quand même. eh ni hao. tàng lay chu hoo. waaw loolu ngay def te bàyyi dëgg nooy lakk laay lakk xanaa déggoo leen ko moo doon bisaat si yéen. ok léegi doo présenter Papis. ah Mr Papis. ko. yeah moom mooy moom mooy professionnel bi nekk suñu ginnaaw xam nga di jëm Cobra bi you know <laughs> a ah, ma ngay bëgg a jeex ci réew mi gannaaw bu problème taxawee nag ab solution la ñuy wër solution nag ñëw na ki ko indi di Serigne Yadaly Ndiaye di daan di borom xam-xam bu mag a mag a mag ci réew mi suñu borom nag may ko xam-xam ci wàllum faj ah, mu ciy def lu am am am solo ah, dinaa ñëw nag a ci feebar ya nga xamante ne tey ma nga koy faj waaye damay ñëw ak moom ci wàllum istixaar istixaar nag mu ciy lool suñu borom dénk ko ci àpp xam-xam damay door ak moom euh, feebar yi nga xamante ne mi ngi koy faj euh, lii di wàllum télé impuissance sexuelle wàllum euh, rhumatisme jigéen ju bëgg am borom kër wala ki nga xamante ni tamit dafa bëgg am doom góor gi nga xamante ni bu teewee alal mu dem wala ki nga xamante ni tey dafa umu loolee lépp nag Serigne Yadaali da koy faj nag Serigne Yadaali nag day nekk fi nga xamante ni tey moo di Touba ndaamaatu wala fi nga xamante ni moo di Parcelles Assainies unité 16 yow mi nga xamante ni nag yaa bëgg a ak Serigne Cheikh Daly Ndiaye woo ko ci numéro bi di 77 122 77 60 wala nga woo ko ci